Euh, voilà mu ngi noonu ah Babacar Niang alias euh, Rapathia dégg nga ko li nga xamante ni loolu la waaye euh, Babacar fi may ñëw mooy que ni fan yële see gannaaw gis nañ fi fi nga xamante ne moom mooy Facebook bi benn page Facebook ñu def fa benn pub annonce maanaam comme quoi que Rapathia dafa nekk acteur boo xam ne daf ñu doon bégal tey gisatuñ ko ñu bari naan mi ngi si VDN bi di jaay li nga xamante ni nii moom mooy ay CDM ñoon nag daal di amoon yéene def li nga xamante ni maanaam mun naa ni sax benn ket lay doon benn ndimbal boo xamante ne nii dañ la siy jàpp ndax ñu dégg nga leen am dégg waaw waaw mujj naa leen dégg parce que ku ñuy wax Babacar moo moo ko moo ko xool seetaan comme ni nga ko xoolee mhm. eh, jël sama numéro jox leen ko ñoom tam woo nañ ma waxtaan nañu man quoi mais bu ñu waxtaanee rek waxtaan bu rafet la waxtaan ku nekk dem maa ngi leen déglu quoi maa ngi leen di déglu quoi maa ngi baax la ñu baax. boobaak léegi déggagoo leen si. non dégguma leen mais daal euh, xam naa daal ñu am yéene si artistes yëpp la ñu quoi. ndeysaan man mu lu moo ket laay bañ ne kii rek laay bañ quoi parce que ket bi boo ko déggee. waaw waaw ñu yaakaar ne da am problème te fekk amul benn problème. Mhm. yaa ngi liggéey sa liggéey. bu mhm. euh, fekkee wàllu ndimbal nag di ko joxe rek ngir euh, kii so fan. sa loolu ñu cofeel la.

nag leen daan bégal trop trop trop marqué leen waaye nag moom Babacar na ngeen ko xaar ndax am na seeneen yoo xamante ne ni euh, mi koy waajal euh, ñi nga xamante ne moom mooy euh, sénégale alors Babacar ñu gis si biir daaray ko ci ba tey beneen xew-xew diggante Ndeye Khady ak Ibra Italien. waaw kooku kooku <laughs> dinaa si leeral tuuti xam nga Ibra Ibra parceur la te xarit Ndeye Khady la man Ndeye Khady sama xarit la ñun ay waay lañ daaray yàgg ñu mel na famille kooku ay tooñ la woon rek j'espère que ay tooñ la woon rek dafay takk ak dafay nangam ay wax rek la quoi mais ko ah donc loolu ay tooñ ay la rek ay la ko. ah mais sénégalais ñu bëri jàpp na ni loolu am na parce que dégg nañ. tamit bu amee day baax de bu amee day baax ah na fa jaar nekk dëgg de affaire bu amee day baax de nga si loolu. bañ am bañ a waaw. mais nag ñaata at nag Ibra déclaré wul li nga xam ne moom mooy xaat ba jëm Ibra dafa wala. day dara jot rek day dara jot rek day dara jot rek day dara jot mais nga mu de bu baax sax ah ñu defar bu mu baax dara newu si. defar bu mu baax. ah waa gis nañ tamit ay euh, euh, euh, acteurs yu mag comédien yu génn tamit di dal si ki nga xamante ni moom mooy kaw Ibra Italien ndax loolu moo waroon nekk réponse bi. dal si kawam maanaam. di wax que ni warutoon def looloo ñii tamit dem ba de sax su ma doon maandee xarit dama koy dàq. ndax loolu ànd nga si. xam nga nit ñi xam nga am na ñoo xam ne seen ay wax la ñu yor rek quoi man daal man daal nit ñi daal lu baax lu baax apprécier moo gën daal. Mhm. nday xar yi takk nday yi Ibra Italien takk ko dara si bu dee mu man dara si quoi da tak war na rek jeex na Ida Ida day pass nii rek affaire man dégg ma ni am wala amul quoi amul ku si dal si Ibra ya. hmm. hmm. hmm. ah. si erreur bu ngeen de ah yaa erreur bu ngeen mais dara new si dara si bu ko waree takk naka takk defar bu mu baax amul benn problème waaw d' aussi le cas de Baye Ili ak loolu noonu bi nga ko yëgee yow ban réaction la nga am. non man euh, yëg naa ko et puis seetaan naa quoi mais euh, erreur du ñàkk. Mhm. man xam naa bàyyi it yu baax amul problème saa neex xëy na li ñu gisee bariwul xamantuma moom mais xam naa ne ku baax la. Mhm. leer laa lay wax te mu waxoon li nga xam gisee lu baree joxu ma lekk joxu ma ko mu lekk mais si nu may gisee ay action xam naa ku baax la. Mhm. yenn ay xolom te ku gaaw jooy la yenn ay xolam. vraiment may ko muy wax yenn yi. mal entendu la rek. kii wax ne fii kii wax fii mais xam naa ne ñoom ñaar ñëpp amuñu problème te def ma wóor ni ñoom ñaar déggoo wan nañu. ndeysaan saa nooy fu mu waxee ba jooy. xatit xatit kat dama ko yërëm kera dama ko yërëm ko seetaan si vidéo dama ko yërëm. Mhm. ma xam ne du jukkoom fekkee wax na wala waxuleet erreur am na erreur am mhm. daal ñoom ñaar ñëpp dama leen dund bàyyi laa gën dund nag wax dëgg yàlla saa neex moom xamante ne bu baax. Mhm. xamante nii nii rek mais maanaam ñiinante bu baax defuñu ko bu ma ko xamante mais daal li ma xam si moom yaakaar naa daal euh, yàlla xam na ni ku baax daal laa xam ne séeréer lu baax la man séeréer. d' lu baax ñu ah, xamante ngeen. non ma fekk semence fekk BSDA benn rôle laa yi ma